bi nak ñi ngi ñew tok ndax dañuy mbolo dama koy leral du ñaar dërëm yu mala laaj du lenn lu ma laaj da nga ma wax ni ma ba may ak président sama doole la démé sama ngëm-ngëm sama fulla manit ab talibé la nga def sëriñ kon sañ na mala def edol la nga defoon ba am li nga def ma jim ko ba xam dina am li nga amam déet dama bëgg mu leer du dërëm du ñaar dërëm dama ñëw ci sa sal ñu waxtaan ma war a ñëw wuy si la bis booba dafa tuur ma ñëwaat ne ñëw tey bii day firnde ni duma la war te duma warkat te ñi ma àndal du ñuy warkat barke Sëriñ Tuubaa fu ma leen soxla ñu fekk ma fa tax yaakaar naa bu doon am am wala ab dayo wala fa ñuy xool léegi doomu aadama ndax léegi fa ñuy xool doomu aadama nekkul ni ma def mais man ab taalibe laa yaakaar borom daaru salaam sama lépp ci ni laa koy doxee billaahi wallaahi lu may am ci taalibe laa koy am luma ñak ci talib la koy ñak gëna Parti xasuma leen saagowuma leen xulowuma fa xexuma fa mais doxena gede bu sa ba biir sama kër def tànki neen ñu ngi ni taw dam na réunion di réunion ba ba 17 ci guddi 11 heures jëm minu oo ma daal li ma sol ma doxe sama tànk gi dem ñibi sama kër sëñ bi lool nak dama bëgg ah résultat yu leer gën ci bama faté lool mu leen di xamal ni li soxna Mari wax doyna seuk li nga wax li ma wax man baara doy na sëkk li soxna si eh, ba Mari Nduur wax doy na sëkk li am solo lang ma waxoon rek di napp di la jox wan la ni ni nappee ko gën fu ne nga coppati fa bu yàggee ñu am luñ la jiñ dafa am gëm-gëm ak pas-pas boo xam ne nii moom la bëgg a àndee ak yéen nee na loolu mooy lan ñu ànd liggéey di liggéey ba njëriñ ñëw ñu bokk ko képp ku ci am soxla guddi ak bëccëg ma ànd koog yéen muy lu neex muy lu naqari ndax ñaar yooyu rek a fi ne di leen leeral ni it nee na moom dafa am lu mu gëm nee na bi muy ànd ak président Macky Sall soxna Marie wax na ko léegi dafa am lu ma gëm ba mu xëyee di def déclaration it fekk na mu gëj koo gis fekk na ma gëj a wax ci politique maa wax. ci TFM ni jël naa samay engagement jàppale ko sans condition boobu ba léegi itam mu ngi ciy liggéey nee na lu bari jaar na fi waaye waxtu wu ne bu gestoo baat ba mu waxoon rek mu joxaat ko beneen force ak beneen engagement pour continuer liggéey kon gëm-gëm boobee ñu amoon ak pas-pas boobee ñu amoon bu mu sañoon képp ku muy àndal pas-pas boobu ak gëm-gëm boobu ndax li am solo li responsable yi doxal wala lenn ci militant yi diko doxal waye mom dafa am leneen lu mu gëm lu dul lolu li mu gëm moy won la ni ni nappé napp di la jox won la ni ni nappé ko gën